mbokk yi famille yi waaye askanu Sénégal yépp ci ndaw yi nga xam ni ñàkk nañu seen bakkan ci manifestation yi ñuy seet di jox suñu solidarité di ànd mettitlu ñi nga xam ne am nañ ci ay gaañu gaañu ci nekk ci hôpitaux yi waaye ñuy jox solidarité aussi di seet ñi nga xam ne jàpp nañ leen def leen ci commissariat yi ak ñi nga xam ne jàllale nañ leen déjà euh, prison ñu nekk fa ci ay jafe-jafe ak i coono te euh, teguwul ci dëgg teguwul ci yoon may gërëm ñi ma jiitu ci jël kàddu gi Mamadou Mbodj Aliou Sané maître Moussa Diop ba ci honorable Mariem ndax wax ji dëggu na wax ji set na wax ji leer na ndax dëgg bu jibee dafay génne ci xol sénégalais yi gëm naa ni noonu lañ ko déggee ndax fi ñu toll jëf rek moo des ci réew mi Aliou Sané wax na ni seenu tele wala rajo boo jàpp ci àddina bi yaa ngi gis ñuy wax senegal jàpp ni sax dañ ci wax lu ñaaw ci deru Sénégal ñu bari li tax ñu wax ci mooy dafa am fu ñu tegoon senegal ak weg gu ñu wegoon senegal dafa am dayoo bu senegal amoon ci àddina bi ndax Sénégal joué woon rek rôle pour moom dafa joué woon rôle yor raaya ak drapeau Afrique foo mësee ni Afrique dafa bëri violence am ay guerre am ay coup d'état amul démocratie forom bu ñu ko mësee waxee ci àddina waaye dañ naan am na ay exception Sénégal ci la bokk ba taxoon ñëpp tem am fu ñu tegoon bi yii xewee ci réew mi ñu am ci njaqare am ci naqar ba tax ñu yëkkati kàddu jàpp ni réewu Sénégal ak njiit yi dinañu dégg boobu message ak écho bi mu def au niveau international réew mii di réewu Njaajaan Njaay ak Thierno Souleymane Baal réewu Ndate Yàlla Yaasin Buubu maam Cheikh Ahmadou Bamba maam Maodo maam Limaamu maam Buu ak maam Baay réew mii di réewu Monseigneur Thiandoum ak ñi ko wuutu ak ñi mu fa ñi mu jiitu réew moomu ñu xam ko ci ngor xam ko ci jom xam ko ci fulla ak fayda ba kolon yi bi ñu fi nekkee ni réew yi ñu mës a coloniser yépp Sénégal ci gën a jafe yor ndax seen jom ak seen njàmbaarte ku fi ñëw jiite ko ñu teg la fi ci démocratie ak droit nga defee ni mën ngaa dem ba def sénégalais yi ay jaam bëgg a def buumu jaameel ci seen baat di ñu xëcc di ñu opprimer yaa ngi nax sa bopp moo tax Macky sal dafa juum erreur bu rëy rëy la def bi mu demee ba foog ni nag yor na lépp ci pouvoir naagu na desul lu dul bu jël sénégalais yi opprimer leen def leen jàmpur toog fi juum na ndax loolu ku ko mën a def Sénégal fii def ñu oppression def fi dictature wala tyrannie sa maamaati maam sax juddoogul man maa leen wax lii ndax bi fi tubaab bi ñëwee ak esclavage bëgg a jaay am na ñu ko ànd ak ñoom nangu ko yàgg naa ko wax fu nekk waaye am na ñu ko xeex fekkewuñu ko lañ am ca ginnaaw leneen la waaye ña fi nekkoon a ngi fi ba tey te lu jiwu jeexul jógu fa moo tax may envoyé message suñu jeunesse bii nekk ci mbedd mi ñu leen di jaajëfal ñu leen di encourager ñu leen di féliciter ñu leen di wax nu sommes fiers de vous fu ngeen ko natt rek wut ëpp na ko ndax bu leen neexoon ngeen toog seen biir néeg yi ak seen kër yi di commenter di naan ataaya ni lu xew baax na da ngeen jël seen drapo génn xeexal seen askan xeexal seen réew xeexal seen avenir ku jàpp ni amu leen xel wala amu leen perspective wala di di def xamu leen ko kooku moo xamul li ngeen bëgg yéen. Sénégal bu wér ngeen bëgg Sénégal bu leer ci seen bopp perspective d'avenir yu wér ngeen bëgg ku leen ko bëgg a xañ ngeen jàkkaarloog moom loolu moo leen génnee moo tax. ñu jàpp ñu ni ay force obscure ngeen de jàpp ñu ni ay terroriste ngeen jàpp ñu ni ay rebelle ngeen ñi ko wax xam nañu ni waxuñu dëgg bu leen kenn découragé mbaa mu defloo leen ba ngeen xalaat lenn ci yéen y compris ñi génn ñu naan dañu def ay violence ñun rafetlu wuñu ko encouragé wuñu ko waaye fu am manifestation àddina ba États-Unis mbaa France ñi gàmmu ak ñiy raas dem bokkuñu dina am ay cent mille yu génn di manifester dina ci am cinq 500 yuy génn pour def leneen te ñooñu ñuy wax ay ay force obscure lañu ñoom ñoo ne woon 2021 ay force obscure dugg nañu ci réew mi est-ce que mës ngeen gis benn bés bu ñu leen génneel nit ni la jàpp nañu force obscure wala rebelle 2021 ak léegi jugé nañ ko daan nañu ko xanaa dañ leen jàppoon ba pare bàyyi leen ñu dellu génn fa ñu nekkoon est-ce que ñoo dellu si nañ ko wax sénégalais yi nañu bàyyi seen tappale yi bu ñu génnee woon sax nit ni kii rebelle la wala force obscure la wala xaw ma ko tuddee ñun dañu naan leen yéen yéen a ko former encourager ko créer ko indi ko dugal ko ci manifestant yi pour bu ñu defee ñaaw ñaawteef génn ñii ñoo ko def jeunes yee ko def wala yooyu parce que mënuñu nax kenn foofu la réew mi toll may daaneel nag di wax Macky Sall rafetlu ñu li mu génnee arme Sénégal mu jàkkaarloog askan wi yor ay armes ñaawlu nañ ko condamné nañ ko te lu ci am ëllëg moom mooy jël toute la responsabilité moom ak ñi mu àndal. ndax Sénégal yeggagul fu mu mën a génnee arme ci ay population yuy manifester loolu na ko xam te lu ci am ñii wax nañu ay tribunal pénal international wax nañu yeneen te amul dara loo xam ne dañ ko ci bàyyi moom mi nga xam ne moo génnee armée bi moo ko fa waroon bàyyi fa mu nekk moom mu génn en tant que njiit bu fekkoon mat na li mu doon parce que njiit du rëy njiit ñun ñun ñii mën nañoom am suñuy défaut doomu aadama ñu am ñu am rëy bu nekk ci ñun wala ñàkk humilité wala orgueil waaye un président de la république bu jiite askan boo xamee luy président luy charge am luy fonction bi da ngay am humilité bu génn jotee da ngay génn jàkkaarloog sa askan nga nangu say faute ak say erreur Macky Sall lii fi xew 2021 ñëpp newoon nañ ko lii dana narmeel réew mi arrêté ko mu bañ ko def kon moom mooy responsable bi na génn wax ak askanu senegal mu ni leen benn man Macky Sall amuma lu ma leen di wax ni ñaan leen ma ko pour ma may leen ko ci lu jëm ci mandat suñu mandat la ñun sénégalais yi danañu ko delloo te duñu ko négocier duñu ko ñaan njekk loolu na ko xam muy benn na génn wax ko ñaar ñi ñëpp wax nañ ko damit koy baamtu rek bi mu demee ba xam ne li mu tuumaal Ousmane Sonko du dëgg ñu fexe lu nekk xam ne mënuñu ko condamné nañu ko bàyyi mu génn këram gi violation des droits de l'homme la atteinte à son intégrité la attentat psychologique la ñuy def moom ak njabootam te teguwul ci benn mandat teguwul ci dëgg te loolu nag avocat yi dinañ ko liggéey askan wi dina ko liggéey mais ci askan woowu laa bëgg gën a insister manifestation yi ñu leen fi annoncé askanu Sénégal dañu naan le pouvoir arrête le pouvoir le pouvoir oppressif d'un tyran le pouvoir d'un peuple et des citoyens moo koy arrêté en démocratie bu ngeen génnee di nekk ay millions ci mbedd mi génn di nekk ay millions ci mbedd mi drapeau à la main ngeen di entonné seen hymne national di woy woy yu fi maam yi bàyyi woon muy muy kañ ngor ak jom moom Macky Sall dina xam ni jeexal na je l'ai ci manifestation F24 bi mujj Macky Sall est impopulaire dans ce xam na ko ultra minoritaire kenn bëggatu ko am desewu ko lu dul jël doole sës ko ci askan wi ku ja wax mu jàppale tëj ñun ñii fi toog ci taabal ji li lay woon personnalisation du pouvoir bi mu nekkee bu ko neexoon fa mu toog lay toog ni kii suba bu mu fanaan këram kii gannaaw suba na ngeen ko téye soxlawuñu ndax def nga wala defuloo ngeen defee ni sénégalais yi dinañu nangu loolu fu mu jàppee ñaar fukk génn fu mu jàppee fukk téeméer génn fu mu jàppee téeméer mille génn ba keroog muy xam ne mënul am ndam mu dellu ginnaaw loolu laa bëggoon joxe comme message di encourager une fois taxawaay mobilisation ak détermination et le na sénégalais yépp génn à l'intérieur du pays et dans la diaspora ñu xam ne nangu nañu suñu réew et le tyran dina commencer jël yoonam pour génn dem dem ci ci biti merci beaucoup.